Mboro FM. C'est plus qu'une radio de proximité. Nous sommes votre fidèle compagnon. Nous sommes la somme de la magie, de la belle plume et de la belle voix. Nous sommes la. asalaamaaleykum waa askanu Mboro maa ngi nuyu góor jigéen mag ak ndaw ci njëlbatu at bu bees bi. may ñaanal kenn ku ne mu dugg ci at mi ci bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu ñu génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi ñaanal képp ku yeewoo mbooro yàlla na la yàlla may wër yàlla na la yàlla defal sutura yàlla na yàlla yokk say xéewal lépp loo waaye amoon ci rëcc rëccu ci at yi weesu atub ren bi yal na ñëw defar lépp waaye itam yal na yàlla def naataange ci dëkk bi nga xamante nii moom lañu bokk muy Mboro moment yu mel nii nag su may wax sama xel dafay dem ci ñi dudd may ñaan sunu boroom mu jéggal leen xare leen ci ajana yi gën a kawe waaye may ñaanal ñi nga xamante ni tam yàlla dafa defal seen yaram sutante yàlla may leen wër yàlla yëkkati leen ba ñu dellu ci seeni soxla sunu mbokk yi nga xamante ni yàlla teg na ndogal ci seen kaw ba ñu yóbbu leen ci prison yi yal na leen yàlla génne ci jàmm may ñaanal ñépp sutura ak xéewal xam nañu ne fukki at ak ñaar fukki weer ak ñaar yi ñu génn bari woon na ay mëbët soxlay nit ñi kenn ku ne ngi doon wax waaye loolu lépp lu ñu rafetlu la ndax kalay soññ dafa bëgg nga réussir dégg nañu soññ yi te bàyyi nañ ci xel bu baax a baax loolu moo tax mu bëgg leen a wax li nga xamante ne nii moom lañu jot a def ci at bii di 2023 ci commune Mbour lu jëm ci njàng ak njàngale bi fourniture scolaire yi mooy yi ñuy jox école yi fukki école ak ñaar wala benn yi nekk ci Mboro kenn ku ne jot nga say fourniture laata ñuy tàmbalee jàng fourniture yi nag fañ leen fekkoon yokk nañ leen daanaka ba lañ doon am ñu am ñaaram waaye tam joxe nañu lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukki table banc ñu yóbbu ko ci école yu ndaw yi yóbbu ko ci CM yi waaye yóbbu ko tam ci lycée bi waaye yàlla dimbali ñu ñuy tabax ñaari salle de classe ca école Patekat juróom benn bloc sanitaire mooy ay toilettes mu ànd ak mini forage ak château lépp ca école Daaru Marnaan tabax nañu ñaari blocu toilette ca école Pathé lu jëm ci mbir wër gu yaram yëkkati nañu bu baax a baax moom itam enveloppe bi nga xamante ni moom lañu fekkoon fii mu jëm ci garab yi ñu war a jox poste de santé yi loolu tam nañ ko yëkkatee bu doon benn la def nañu ko ñaar ñaari machine échographie yóbbu nañu ko ci poste 1 ak poste 2 loolu li muy waral mooy jigéen yi nga xamante nii seen yaram neexut ñu war leen a mën a defal ay échographie ci poste 1 wala poste 2 ñëpp xam nañu ne lu yàggul dara ku ci soxla échographie da ngay dem Thiès wala ngay dem Tivaouane te yàlla dimbali nañu ba machine yooyu ñu ngi fii ñi ko war a yor la ñu war a yóbbu formation ñu xam nañuy utiliser machine yooyu te loolu du yàgg loolu nag daf ñuy dimbali ba nga xamante tout tànk yi doon gaañu wala balaa ñu doon juddu ñu leen doon ñàkk yàlla dimbali ñu yooyu yëpp mun a réglé wu benn yoon. médicament yi nga xamante ne nii am na ay partenaires yu ñu ko joxoon bëri woon na lool ci at bi yooyu itam joxoon nañu ko poste de santé yi pour ñu dimbali ko waaye xale yi nga xam dañoo lompoñ. ñu ngi leen di assister am nañu fi suñu benn agent bu plan taxawaayam moom ak relais yi mënuñoo wax te ñu leen ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale ko ci xale yi nga xamante ni dañoo lompoñ li jëm ci xale yi ak sport bi kuy wax waxi fet da ngay tudd ay xale xale yi tey am naa yaakaar ne ñu ngi ci mbégte ñu ngi ci mbégte ndax centre socio et culturel bi ñu mettre à leur disposition centre bi téeméeri million ak ñaar fukk la ko defare mu mun a egg tey fii mu egg ñu jël lu toll ak juróom benn fukki million def ko ci pour matériel bi nga xamante ne nii moom mooy nekk ci biir loolu ku ko defaral say ndaw dëkk war nañu mën a xam ne bàyyi nga leen xel bu baax sur le plan du sport organiser nañu fii benn final final bu mucc ayib waaye yemuñu ci final bi jéem nañoo xool doomi mbooro yi nga xamante ne amal nañu mbooro njëriñ wala boog seen njëriñ ci mbooro fës na ba ñëpp xam ko ñu ne ñooñu dañu leen di honoré képp koo xamante ni yaa ngi mboor yaa ngi fi def jëf ju baax bés boobu honoré woon nañ la won la ne sa taxawaay ci biir dëkk bi mairie yëg na ko te honoré na la li jëm ci cadre de vie ñeenti mbedd def nañu ko latérite jàllale ko ba mu egg ci population yi loolu nag dafa dimbali borom clando yi pour ñu mun a dugg ci biir dëkk bi ndax kàrce yooyu nekkoon na ay quartier yoo xam ne bariwoon nañu suuf lool courant bi def nañ ci ay jéego xam nañ ne quartier bi ñuy wax Nimzat nekk ci kër Masamba Sude amul woon courant tey jii ku fa dem fekk fa courant quartier bi ñuy wax Njuufeen ñëpp xamoon nañu ne amul courant tey ku fa dem fekk fa courant quartier bi ñuy wax cité Serigne cité des enseignants ñu ñëpp xamoon nañu ne amul courant tey ku fa dem fekk fa courant loolu ay action la yoo xamante ne jot nañu koo def waaye mu am yoo xam ne dañu koo tàmbali waaye pareegul mu mel ni ngay ngay dë ak lu mel ni mbay mbay pël xam naa ne ci at bii lañuy ñuy eggale yooyu ñu gis ci quartier yi bari woon na ay ampoule yoo xam ne dafa yàq woon dëkk bi lëndëm tey bëri na ay quartier yoo xam ne du yàggul dara gis nañu ne seeni làmp defaraat nañu waaye loolu du yem ci quartier yooyu yëpp lépp luy quartier Mboro am nañu yéene incha allahu rabbi dëkk bi leer ndax sécurité moo war a jiitu ci lépp lu doomu aadama di def bu ngeen demee ci marché Mboro waxoon nañ ñu fa pàkk tamaate bu ñu war a tabax hangar bi defe naa daanaka jeex na moom ak ay toilettes yoo xamante ne nii def nañu ko fa waaye itam quartier yi nga xamante ne nii bu taw bi ñëwoon bu nawet bi ñëwoon daanañu inondé fexe nañu ba yóbbu fa ay moto ba tey jii mbirum inondation yi ñu doon wax wax dëgg yàlla jot na réglé wu ci biir mbooloo mbay mi wax dëgg yàlla su fekkente ne tey dañu fee fekkoon fukki ton ñu koy joxe te yaakaar naa fanweeri tonnes ñu ngi koy joxe biir mairie mbooloo muy engrais ak ay semences subventionnées yoo xamante ni état bi moo koy joxe sur le place social bëri nay doomu aadama yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. te lu mel ni ay fête religieuse bu ñëwee ñun ci ay fet la ñu dëkk muy ay tabaski ay korité ay noyal ay pakk ak yi ni mel assisté nañu leen ci bu baax a baax waaye itam daara yi ak jàkka yi ñu ngi leen di jàppale ñoom itam bu baax a baax waaye ñu ngi jàppale manifestation yi saa su ne xam nañu ne population yi ñu ngi ci ay manifestation bu dul ay jàng di ay xew-xew mais à chaque fois que ñu sollicité mairie def na ci ware wareefam jàngalekat yi tam ñu ngi leen di assister ndax xam nañu ne ay examen dafay am ay essai dafay am à chaque fois yi ni mel bu amee suñu loxo mu ngi ci biir réalisation yooyee ma wax yépp am na yoo xamante ni nag tey jii daf ñu gën a ñor waaye yooyu su ma ko waxee ñett lañu ñett yooyu bu ci njëkk mooy ñun ñëpp xam nañu dëkk bi xat na mbooroo kenn amatul place boo xamante ni boo soxla woon kër walla nga am projet war nga ko faa mën a def ndax suuf si jeex na gisee nañu ak i kilifa yu ñu waxtaanal te am nañu yaakaar ñoom jël nañu mbir mi amee am nañu yaakaar ne daañu ko porter fi ñu ko war a porter ba nga xamante ne nii mbirum yokk dëkk bi ñu ko mën a accordeel ci lu dul yàgg dara li jëm ci mbirum ndox ndox mi tam tey Mboro am na jafe-jafe ndox muy lu ñuy wax fu ne fu ma toog wax naa ko waaye itam damay félicité ñi nga xamante nii de façon provisoire ñu ngi yor mbirum ndox mi bay permettre population yi quand ñuy naan ndax ndox nit mun na ñàkk lu ne suuf ndox tey jii mbirum ndox mi dinañu ko régler état mu ngi si dina am lu mu def loo xamante ne nii képp ku amoon jafe-jafe ndox ci mbooro dina ko régler loolu nag dafa am liggéey boo xam ne dafa xaw a diis tuuti état rek a ko attan ndax lu mel ni ay château ak yi ni mel su ko état deful du yomba def jox nañu ay promesse ferme du yàgg ci 2024 bi daañuy indi benn troisième forage au niveau de Mboro te loolu bu ñu ko indee am nañu yaakaar ne le problème sera réglé te gestion bi ñoom daañu dellu si xool ni ñu yoree gestion wu ndoxu Mboro pour que ce problème là ñu fàtte ñëpp réglé ñu mu réglé wu ñëpp fàtte problème bi bi ci des mooy mbirum tëli bi tëli bii mbir la problème la ñun ñëpp xam nañu jafe-jafe bu am ci Télimbooro bi ma ànd ci ak yéen nag coono bi ma koy dund ak yéen waaye tam may dalal seen xel ci mbirum tëli bi lu yàggul dara daje naa ak kilifa yi waxtaan nañ ci am nañu yaakaar ci lu dul yàgg dara daa ngeen gis fii travaux yi commencé loolu nag dañu koy sante yàlla bu baax ma ci sant ak di félicité benn doomu Mboro bi nga xam ne sax moom la ñu def directeur général u Ageroute muy Mamadou Ndaw ma koy ñaanal yàlla kàttanal ko yàlla dooleel ko yàlla may ko xel ak xalaat bu mu yoree li nga xamante ni moom lañu ko dénk ba Sénégal gépp gis ci boppam lépp ànd ak wër kon mën nañoo am xel mu dal ni du yàgg dara incha mbirum tëli bi ñu réglé ko dëkk nag du kenn moo ko mën a yor yàlla dimbali ma ne ma ma nekk ak équipe équipe bii ma nekkal muy ay nit ñu xarañ ay nit yu bëgg dëkk bi ay nit yoo xamante ne nii fàttewuñu lu taxoon ñu fal kon ñooñu ku ñu encadré danga xam fi nga jëm fu mu doon ñun sunu gis-gis ci Mboro mooy jële ko fa mu nekkoon yóbbu ko fa gën a baax suba ak ngoon guddi ak bëccëg loolu mooy suñu taxawaay loolu suñu ko dee defit il faut que ñu woo ci ñëpp woo ci ñëpp kenn ku ne wàll ma ngi ci biir ñu ñëw jàpp ci xam ne dëkk bi sunu dëkk la ñun ñoo ko war a defar kenn du jóge feneen ñëw di ñu defaral Mboro ñun doomi Mboro ñun ñu dëkk biir Mboro ñun ñoo mën a defar Mboro may tàllal sama loxo képp koo xamante ni yaakaar nga ne sa xel sa xalaat sa doole boo ko indee jëf ko ci waa Mboro daal ci gis seen bopp maa ngi la ciy invité damay sant nag samay collaborateur collaborateur yi nga xam ne maa ngi bokk ak ñoom di liggéey fii ci mairie bi ma njëkkee ci d'abord le bureau municipal muy samay adjoint ñi nga xam ne sës nañu ci man te rëkkuñu ma ñu may jàppale ci boor yëpp ma sant leen gërëm leen sant les conseils municipaux yi nga xamante ni ñoom itam samay collaborateurs lañu sant. les agents municipaux yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi fii ci mairie bi te le secrétaire municipal jiite leen mais félicité bu baax la secrétaire municipal ci liggéey bi nga xamante ni moom itam wax dëgg yàlla mu ngi koy def ci mairie mbooro bi may sant bu baax le cabinet du maire ñoom itam seen liggéey liggéey bu mucc ayib la maa ngi leen ciy félicité seen collaboration ak seen ànd ak man mais ma ñaan leen ngeen may ma ma ñoo sant ma sant ñoo xam ne mënuma leen a fàtte tam muy les services techniques te jii dafa am ñoo xam ne sooy liggéey di démembrement de l'État mënoo ñàkk liggéey ak ñoom les services techniques ñu ngi jàpp ci liggéey bi ñoom itam maa ngi leen di sant di sant euh, kilifa diine yeeg kilifa aada yi partenaires yi nga xamante nii jàppale nañ ñu su doon lim partenaires yi dinañ fi yàgg mais partenaires yëpp a ngi ci biir maa ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay di sant ñi féetee ci paju paju wérgu yaram yi di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci école yi di jàngale di sant opérateur économique yi acteur culturel sportif et environnementaux yi waaye itam di sant artisan yeeg chauffeurs yi di sant presse locale bi ak télévision bi di sant la jeunesse mboroise gone yi mbooro ay jàmbaar lañu gone mbooro ay jàmbaar lañu dama leen di sant ndax atub ren bi xam nañu li marqué wu ci atub ren bi muy tukki bi nga xamante ni xale yaa ngi koy tukki di jël gaal yi mbooro am géej concerné par tukki boobu waaye bëri na ay jeunes yoo xamante ni tey gëm nañu seen bopp toog nañu seen biir dëkk bëgg liggéeyal seen dëkk kon ñooñu demal leen di félicité di leen encourager di leen wax ni nañu gëm fi ñu jàpp foofu la te incha allah lépp dina baax. donc maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di jeexalee rek di ñaanaat di ñaanal suñu dëkk bi di Mboro commune Mboro yàlla def fi jàmm yàlla def fi sutura yàlla def fi naataange. mébét yi nga xamante ni moom lañu am ci suñu xol muy lu baax dem ci dëkk bi yal nañu ko yàlla defal waaye itam may ñaanal kenn ku ne ci ñi dëkk Mboor yàlla dolli seeni sutura yàlla defal leen jàmm atub ren bi nekk atub problème bu waay amoon rek yàlla def ci atub ren bi mu réglé wu ci kenn ku ne gis ci boppam kon nag maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ñëpp bonne année 2024 Mboro déwéniti Mboro FM, c'est plus qu'une radio de proximité. Nous sommes votre fidèle compagnon. Nous sommes la somme de la magie, de la belle plume et de la belle voix.